et je crois aussi que waxoon naa la ko en commission comme le code général des collectivités locales ni mu explicité ci li nga xamante ni moom mooy les maires et les présidents de conseil départemental qui sont des catégories juridiques avec des statuts yoo xamante ni c'est bien défini dans le code qu'est-ce qui empêcherait à vos équipes à nous-mêmes de reformuler li nga xamante ni mooy texte bi pour mën a dugal li nga xamante ni mooy maire ak président de conseil départemental ci texte bi nga xamante ni dana mën a gën a leer parce que quand on parle d'exécutif de chef d'exécutif local moi je trouve que c'est un peu vague parce que ça peut prêter à confusion au niveau déconcentré c'est le c'est le préfet le gouverneur le sous-préfet au niveau décentralisé c'est le maire et le président de conseil départemental donc jàpp naa ni pour bañ a prêter à confusion ëllëg si biir interprétation di ci am war nañu ko mën a leeral ba mu gën a leer alors beneen mbir bi aussi moi je pense que un bon système de parrainage et assujetti n'est-ce pas à la fiabilité à 100 pour cent du fichier électoral Union européenne moo ñu mujj a aidé à faire l'audit du fichier électoral mais lan la ñu waxoon quatre-vingt-dix-huit pour cent du fichier électoral c'est fiable loolu mën nañu ci dem élection je suis d'accord mais il a deux pour cent yoo xamante ni fiableul te élection bokkul ak parrainage 2 pour cent d'un fichier électoral de 6 millions de personnes monsieur le ministre c'est 160 000 personnes imaginez kenn ku ñëw dal ci 160 000 personnes yooyu donc sa parrainage du baax donc jàpp naa ni il faut faire en sorte que le fichier soit désormais stable nga xamante ni du am benn jiixi jaxa marge yi nga xamante ni mooy marge d'erreur yi ci am ñu mën ko régler bu ko régler là je pense que boobaa danañ am un très bon parrainage donc pour vous dire que Sénégal mënuñu ñëw di am ay candidature fantoche ay candidature fantaisiste ku jóg rek ni candidat en l' état actuel on a plus de 45 candidatures donc nous sommes d' accord sur ce filtre à condition que aussi li nga xamante ni mooy suñuy préoccupation ñu mën ko jël en compte je